sarko sarko Zarko Zarko maa ngi sarko siyaar Zarko. wasaare làmb. fës ñi nga am jaamu gain. dëkk nii xam def climat bu baax. xam nga ñu def jeget nii relax. yaa ma gën xam ñëw seetaan si làmb. non loolu ngay wax. ñëpp. ñëpp dañ wax daa wax ba ñëpp ne dañ lay daan. Ah. barki Serigne Touba ñu xam ne Serigne Touba amul morom kenn la. du kenn. pànk nga nag. billaahi ah. nga pànk. non ma yar nag. magub lébu moo ma yar moo tax foog mu pànk. Zarko actuellement daan nga mbay guy gi ñu bari ci làmb di la tàllal loxo keroog bàyyi ma njoon gis naa seen combat xaw a am kii ma jël ko mu def sorti ne ma da koy jël par ci nii wala ci nee lan la yéen sa diggante ak bàyyi ma njoon ban problème ngeen am. non amuñu problème combat la ñuy dox combat bi taxaw na. taxaw na taxaw na man ak bàyyi ma njoon dof bi jël na dof bi arbitre bi dof lay doon. Ah. dafa leer. reporter yi sax dof la ñuy ñëpp dof la doon dafa leer kenn du nitee. baa ma ñoon dugg na ci xew dugg na ci gaal boo xamante ni xamul fu mu koy yàqalee. te sama cag bi foog ma teg ko fole caaro yi. Hmm. billaay walaay ma jógee ci moom rek jàll ci keneen. bàyyi ma ñoon men. non jaaxalu ma def xoyantaan fi yow bàyyi ma ñoon dawul sama yaram. xoyantaan Gambie la ñoom Gambie yet la ñuy xeexee fii Sénégal loxo la ñuy xeexee. du benn ñun dañoo miis dóor lan laay séntu sa diggante Baye Mandione ndax ñëpp xam nañ ne bagarreur la te du gi ginnaaw. dama koy dóor ba mu daw génnee boppam. Baye Mandione Baye Mandione. Njoon dama lay dóor ba nga génneel sa bopp làmb ji. Njoon mag la loxo yi daa kàbb munul laaw munul munul dóor. loxo loxo yi dafa def nii comme bombardier. du jab góos day laaw rek. donc saraxam jafewul. Ah. non dafa leer. mbuusu meew la rek ak sondal juróom. li ma jaaxal mooy diiraa bi nga nekk Espagne yëpp. gisuñu Zarko mais bi mu ñëwee dañoo yaakaaroon di nga perte repère da ngaa ñëw rek bokk bokk bi lan la. Zarko c'est un gladiateur du perte repère ci dara jamais kaay xeex moo ma gënal kaay lekk moo ma gënal kaay naan ma laa nag ngay xeex ba pare ñu lay fay nan ma ray gisoo lii léppay teppeeku ragaluñ ci dara. bilaay bu dee dóor mu teppeeku rek ak dóor mu dagg mooy tax nga fayeeku non man damay fayeeku par force par force damay fayee kenn du ma tere. Zarko ñëw na Sénégal samp pour fas yéene laal yëpp duma leen may dara ku ci ñemewul lu teppeeku bul jël Zarko bàyyi ma jour contre bàyyi ma ñoon ci laa leen di confirmer wane leen ni Sénégal man su ma amoon lu ma gënal làmb ñu def ko MMA. làmb jii nii buñ ko defoon MMA dinaa fi dóor mbër ba mu daw tëbal boppam barrière yi. billaay wallaay taalaay. lii dafa yomb trop. billaahi xam nga dama koy wax gars yi foog damay foo mais lii dafa yomb nga ñëw ni nii nii daaneel benn nit rek après gagné nga. barke Serigne Saliou c'est le cadet de mes moo gën a tuuti mais bu ko defoon MMA nga dóor ba mu daw génn man boobu laay gën a kontaan. kon su diggante mbay guy gi li nga ko def doyaloo. doyaloo ma billaay walaay. dafa yomb dafa yomb barke Serigne Saliou. moo tax moo tax ma ne yoon eh, ñoom Pape Sarr. ñu def ko MMA moo ma doon gënal man. mais daf ne daa am loo ko sotti. avant lamb ji donc ko da du mystique foog mu ñam ci gereesu mbaam bi ukkambe bi foog mu dal ko ma wële nu mboos ma njàkku gën foog ukkambe bi dal ko. non gereesu mbaam bi laa ko xeeñal yàggu ko xeeñ foog mu wàccu. Zarko ku ko laal di nga laal gereesu mbaam bi dafa leer. même Baye ko ña da koy ñam force la Baye Mandione est-ce ñamu ko bu yàgg sax yónnee naa ko gars ñu yóbbu ko gereesu mbaam a ah, sama mbokko haalpulaar onon bandiraɓe kalpulaar min calmini on no feewi ñagane men min heeɓi combat minen e mbama ñon ñagane men allah dokku men victoire belɗo e dow makko wasalam jajof sarko